saamiun aji dégg loolu mooy ismu faay aji def su ko defee dafay tekki nag loo xam ne nii day dem ak dikk kaatib aji bind hmm, mën na bind léegi nii nga demaat beneen yoon doo ko fekk mu bind nekkul melawu sax ci moom waaye luy lu muy def di ko bala loolu mooy ismul faayil olof aji la koy firee aji def ismu mafool nag mooy ki jëf ji daanu ci kawam olof luñ def la koy tuddee madrubun kuñ dóor wala luñ dóor maktubun luñ bind mashrubun luñ naan parce que jëf ji dafa daanu ci kawam kon firim ismu faal ak ismu mafoon bokkut ismu faal boo ko firi de firee ko aji ismu mafoon luñ wala kuñ alam soti li mooy misaal yi sadaqa dëggal na alxulaamu xale bi fal xulaamu xale bi saadiqun aji dëggu la gis nga aji mooy ki dëggu ndem def na aji dëggu nag tekkul ne du du du nar bu ñu waxee ismu faayil rek mooy dana koy def waaye tekkul ne daf koo saxoo nag wala dafa nekk melow sax ci moom. nadima rëccu na ab zaalimu aji tooñ ji fa zaalimu aji tooñ ji naadimun aji rëccu la gis nga naadim ismu faayil la faayilu nañ ko tëj fi'l bi ngay jël tegu ko faayil maanaam maasal bu njëkk bi fata bu ñaareel bi def ko alif xarfu ñetteel ba maanaam xaraf ba doon ñaareel xam nga alif gi danga ko ca yokk moom. xaraf ba doon ñaareel mooy nekk xaraf bu ñetteel bi nga kasara ko bu mujj bi bu dee faayil nga rafaa ko bu dee mafoon nga nasab ko bu dee majruur nga jar ko noonu la ismu faayil faayilun fa zalim aji tooñ ji naari mun aji rëccu la naari mun mooy ismu faayil bi saraqa sàcc na allisu bandi bi almataa bagage bi fallisu bandi bi saariqun aji sàcc la faayilun lañ ko tëgg mooy ki def jëf waaw ah. ki def jëf ji dañ koo wutal ab ismu ca jëf ja waaw ah. xam nga saraxa sàcc na andi su band bi band bi moom la ñu wutal tur xam ne moom lay joxoñ waaye ca fenl boobu mu ñu tuddee ko saareq aji sàcc aji sàcc ji mooy kat mooy alistu band bi moo moom band bi benn loolu moo tax ñu tuddee ko ismul faa'il moom mi def saraxa sàcc na alistu band bi listu mooy faa'il waaye moom dañ ko wutal tur woo xam ne moom lay joxañ direct waaye xottee ko ca fenlu ba loolu mooy ismul faail comme saariqun aji sàcc aji sàcc ji mooy kan mooy band bi moom nag wax naa la day dem ak dikk nekkul melawu sax ci nit ki saariqun mooy mooy ne mu ngi sàcc mën naa am benn yoon la ko def mën naa ñaar mën naa am bëri na waaye daal nekkul melawu sax ci moom xarasa jëmbat na albustaani yu koy liggéey ci tool bi ak garab bi xarasa albustaani bu ko bëggalee wutal tur ca xarasa nooy wax te naan fal bustaani yu koy liggéey ci tool bi xaari suñu aji jëmbat la xaaris aji jëmbat mooy kan mooy albustaani yu xam nga ñoom ñaar benn rek da nga ko wutal tur jëlee ko ca fenlu ba aznaba loolu mooy ismu faayil bu dee sulaasi la bu dee fenlu sulaasi ismu faayil faayilun la loolu jàngoon nañ ko bu dee fenlu bi sulaasi la ismu faayil bi faayilun bi bu ëppee ñetti xaraf ëpp nee na ismu faayil ba mudaaro ba ngay jël mudaaro ba dina xas daa ba def fa miim guñ dàmm kasara la njëkk mujj ko loolu mooy ismu faayil azna ba bàkkaar na góor gi yuznibu dana bàkkaar xam nga loolu mooy mudaaro léegi ismu faayil dana gi muznibun aji bàkkaar la nga jël dagg yaaka yokk fa miim guñ dàmm yuzni bu la njëkk mujj fii dafa kasara naka jekk kon bàyyi ko noonu bu kasara wutoon da nga koy kasara muy muznibun aji bàkkaar kon su ko defee li gënoon a yàlla mu ne yuznibu arrajulu ba pare ne fa rajulu muznibun pour wan la ne la ismu faayil bi ci mudaare bi nga ko jëlee waaye moom maa di bi leen dafay sori bu baree ñaari explication in qataa dog na alxusnu banqaas bi yan qatiu mooy mudaare bi fa banqaas bi daggal yaaga def ko miin guñ dàmm la njëkk mujj ga dafa kasar sax mooy mun xatewoon aji dog la loolu mooy ismu faayil bi kon ismu faayil la ëpp sulaas yi mudaara bi ngay jël rek dagg at fu mudaara bi def fa mim guñ daam mu kasara la njëkk muj ga at xana xereñe a saaniw aji liggéey ji alaamala jëf ji fa saaniw aji liggéey ji yut xinu xam nga mooy mudaara bi afaala yu xinu la dagal yaa ngi def ko mim guñ daam mu kasara la njëkk muj ga mooy fa saaniw mut xinu aji xereñe la waaye yëpp da nga fekk la njëkk muj kasara istadiaba nanguna allah wayalla a dowa a ñana falla yestadjibura dana nangu yestadjibu daggal mi yaaga def min windammu dafa nekk mustadjibun aju nangula pourtant mustadji bun la hon mustadji bun ay wax naala arab dafay bañ arafu ragg mas la ko jiitu sukkonte wér loolu jaadu dangay jël masque arafu ragg ba jox ko arafu sukkonte jiitu ko loolu mu ane mustadjibun mais yaa gi moo kasara rek ci cosaan kon ismu faayil mooy lan mooy ki nga xam ni moo jëf-jëf ci moom la arab xottil tur ca fenlu ba ca jëf ca nga xam ni tur moom lay joxeñ direct comme ni haza di joxeñee jëmm anta damir di joxeñ jëmm moom it dafay joxeñ ki def moom tur la waaye ki lay joxeñ ki def ca ba lañ ko xottee bu dee sulaas koy da nga koy tëgg faailun muy firi aji def tekkul nag melalawu sax ci moom déedéet waaye luy dama ko dikk la bu dee la ëpp sulaas yi mu daaroo ba ngay jël dagg xar fu mu daare ba def fa mim guñ daam mu kasal la njëkk mujj ko te amal setantalal am sedi xismi saani ci misaal xaaj ñaari alkalimaatu baat yi saariqun ak naadimun ak saariqun ak xaari sun wa kazalik alkalimaatu baat yi musnibun munqatiun mun mutqinun mustajibun nee na nga setantal ko boo ko setantalee looy gis te fekk mooy da nga am résultat résultat mooy da da nga fekk kullan képp min haa ci ñoom yaddulu muy tegtale ala faa'ili fi'li ci ki def fi'lu maanaam nga gis ne tur yi dafay joxañ ki def moo tax ñu tuddee ko ismul faa'il turu ki def aw amilil amali wala ki jëf-jëf ja allazi gi nga xam ne yu famu danañ ko déggee minal kalimati ca fi'lu ba hmm. fa saariqu aji dëgg aji dëggu yadul dafay tegtal ala faa'ili sidqi ci ku def dëggu ga wa naadimun aji rëccu yadul dafay teg ala faa'ili nadami ci ku def rëccu ga wa saariqun aji sàcc yadul day tegtale ci ki def sàcc ma jaraa demit wa zalika looloo tax tusamma danañ tuddee kullu kalimatin bépp baat min haadil kalimaati ci baat dañ ko tuddee ismu faa'ilin turu ki def maanaam xam nga fi'lu dafay am faa'il léegi ne arab ne waa waaw pourquoi pas léegi faayil bi ma xottil ko tur wu koy junju te jëlee ko ca fexlu ba loolu mooy ismu faayil boo ko dee faayil la rek de waaye moom tur wuñ xottee ca fexlu bala muy junj ki def ñu tuddee ko ismu faayil mu ne unzur xoolal banda daalik gannaaw lu ilal afaali ci fexlu yi fi amsilati xismi awo ci misaale kaaj bu njëkk bi yëpp sulaasira waaye moom mooy sadaqa nadima sariqa ولا بو سرق تجد هذا لن فك في الامثله الاربعه في نينت مثال الاولى نجي افعال ني فعلوا ثلاثيه ني خم ثلاثي ري دا نغيس نيوم اي فعلوا ثلاثي ري ني نيت نجي وفي الامثله الاربعه الثانيه في مثال نينت نياريلي موي اذنب ان قطع القنا استجاب نينت مثال لا تي نياريلو خاج دا نغيس ني غير الثلاثيه نيكون ثلاثي وإذا تعملت بوسر انت اسم الفاعل الماخوذ بنجل من الثلاثي الثلاثي وجدت دنكو فك على سورة فاعل ميرفا ميرفا ثلاثي جوجي اسم فاعل بفاعل أجيف في عدد الحروف في لي محرفي والشكل اك ماسك نيغا ماسي فاعل نونغو ماسي لي محرفي فاعل ام موم لي ام تاي جيل الضربه نغا دك اسم فاعل بلا ام بروبليم وخال دارب ني لوكو تك مو فاعل كون خمل ني فاعل cosaan la la tolloo xaraf ba tolloog faa cosaan la xaraf ba tolloog ayin gi cosaan la xaraf ba tolloog laam gi cosaan la alif gi ndollal da wax naa ne booy la xaraf yi tolloog baatu faa ayin laam dina dañoo bi xamal ne cosaan li moo double wu ñu double yooyu cosaan la xaraf yi nga xam ni nag yeneen xaraf la ñu bokkut ak faa ayin laam yooyu ndollal la kon daari bun alif gi rek mooy ndollal waaye dara ba gi ñëw ci san daa gi ak raa gi ak baaj xarfu ci san du mos a dagg comme ni ko doon jàngee ci sarf léegi buñ ne la faayil nga koy tëgg mooy fenlu bu nga xam ne ñetti xaraf la dangay ngay jël xarfu bi nga fataa yokk ci alif bu ñetteel bi nga kasra ko ay xarfu ñeenteel moom da koy bàyyi kem ni ñëwee ci naxu mën naa rafa mën naa nasab mën naa jar ça dépend kon dara ba daaribun kataba kaatibun saala saailun am na yeneen sew sew yoo xam ne sarfoo koy jàng comme xaala gis nga xaa ilun la ñuy wax pourtant xawala moo doon cosaan yoroon cosaan ñu wax xaa wiilun waaye waaw go nañ koy soppi def ko alif yooyu des nañ ko jàng si sarfo amma ismul faa'il waaye ismul faa'il al maaxuus buñ min xeyri sulaasi ci lu sulaasi fay nekk naka yow te sa teew da nga attan bi nafsika sa bopp istinbaata suurati nga ballu meloom bi mu ci mandaxa maanaam ci comparé ya siratin bu néew bay na lafzi diggante baatam wa lafzi mudaari ak diggante mudaaram nga moom pourtant dafa la andil maadi yi ne la nag bi comparé ko ak mudaari yi nga loolu bu dee mubtadi dana ci am problème que mën naa am xamul sax mudaari bi mais ba mu jege ko nag nga wan ko ko nii nga def ci bi ba am ismu a yomb andi. mais def na ne ismu faal bi da nga koy comparé ak mudaaru bi diñ ko man a xam muznibun ci yuznibu la jugee kon boo xalaatee na xam ne yaagi lañ dagg yokk ci mim dàmm ko muznibun ak yuznibu gis nga nuñ jege mun xatun aji dog yan xatin mutqinun aji xereñe yutqinu mustajibun aji nangu ñaan yastajibu la jugee kon noo def da ngaa dagg xarfu mudaara yi yokk ci mim guñ dàmm kasara la njëkk mujj ga amaana li tax tamit mu indi maadi bi fële ca cosaan la amaana li tax loolu mooy xam ne ne dina indi mudaara bi ci bax suba encore dina leeral ci qaayida bi it lan moo tax su nan nga jëlee mu euh, euh, kii bi nu mu tuddati euh, faayil bi xëy na moo tax mu indi ko ca maadi bu fële pour wan ne la maadi yi lañ def mudaara am ci am am ci ismu faayil soo bàyyi loolu mooy gën a rafet القادر موي تنك اسم فاعل اسم تور لا مسوغ بنتج تگ بن تگ موي دو تشا دي دلاله على ما فاعل تك دفنا على جف جا وهو من الثلاثي بر الثلاثي لا على صورة فاعل ملو فاعل لا فاعل رنگ تك اسم فاعل ومن غير الثلاثي بر الثلاثي على صورة مدارى ملو مدار بلا بيدار عفو مدارات ولا ساز عفو مدار بلا ميم الميم mët mu matan buñ dàmm wa kasri ma qabla axiri nga kasar la njëkk mujj hmm. xarfu mu daal bi ngay def ko miim buñ dàmm nga kasar la njëkk mujj ga dégg tamrinaat ay jéemantu la ay ndaañaleel kul ismu faayil bépp ismu faayil fi leen baarati ci xalam yi dikk xalam mooy wax ju am njëriñ parce que ibratu mooy résultat wu xalaat li nga jëlee sa xalaat bi ba nga xalaatee ba pare li la sa xalaat jox loolu mooy ibrat ñaare alquran bu ko utilisé def naan li ulil albab inna fi dalika la ibratan li ulil albab ñaam xel danañ ci jànge maanaam dana am luñ luñ ci luñ ci jële léegi bu ñu waxee ibaara nag mooy jumla boo xam ne nit mën na see jàngee dara jumla bu nit mën a jàngee dara loolu mooy ibaara loo xam ne mën nga cee xalaat génnee ci résultat bu am njëriñ loolu mooy xibaara ràññee ismu faayil fi xibaara aatee ci xalam yi dikk wat guduhu nga maas ko bi shakli ci maas liñ ko war a maas wa bayin leer lan maakaan la nekk na fi'lu fi'lu ba sulaasi di sulaasi wa maakaan la nekk na fi'lu fi'lu ba xeeru sulaasi di sulaasi yi nga xam ne fi'lu sulaasi la ak yi nga xam ne fi'lu di sulaasi moom nga ràññale lu daw yi maanaam ismu faayil yi nga xam ne nii seen fi'lu sulaasi la ak ismu faayil yi nga xam ne seen fi'lu du sulaasi li daw yi ñeel leer wa zulmat ak lëndëm taasirun jeexit zaahirun gu feeñ fi sixati insaani ci wér ak doomu aadama leer ak lëndëm dinay def lu bari ci wér yaramu nit hmm. ndax xam nga ne guddi gi ci leen ñu noppalu bëccëg gi ñu liggéey te ñaar yëpp day ma wér dal kese dafay indi feebar yëngatu rek day indi feebar fa lësi ki nga xam ne yaskunu dana dal dana dëkk man di leen kër musliman bu lëndëm laa tam lu fees asiatu shamsi ceeneeru jant bi maanaam leeru jant bi du fa dugg yuraa dañ koy gis wa gis moo te jëmm ji fekk jëmm ji kon wa gis moo te fekk jëmmam ja dégg nga kooku waa waxal la zabilun aji laxla wala wonuhu kulóoram shaahibun aji soppeeku la koo xam ne fi nga dëkk dafa lëndëm tërës amul benn leer ku la xool day gis ne sa jëmm ji dafay lax sa kulóoru yaram day soppeeku wa daw shamsi kon leeru jant bi mufidun aji am njëriñ la min wujuhin ci ay anam iddatin yu limu yu bëree bëri bëri dégg nga leemu jant bi li muy jëriñ doomu aadama yàlla rek moo xam nu nu mu toll foofu moom mu wax ci lenn ci li muy jëriñ mu jëfifun aji becc aji aji fendil la lil xawaayi ñeel ngelaw li dégg nga tax ngelaw li maanaam fendi ngelaw du du rit ba ëpp waaye noyit ba ba ëpp maanaam ngelaw li wow daal ba ëpp tuuti da xëy na ngelaw yi jógee si suuf bu du woon ak dégg nga euh, leeru jant bi wol suuf seg yooyu mën naa am du yore couleur bi loolu waaye leeru jant bi mooy tax ngelaw yi fendi wow tuuti mu biir aj arag la moom leeru jant ba li jarasimil amra di bu feebar yi jarasim mooy microbe yi microbe yi joxe feebar yi tàngooru jant bi daf koy rey musaidun aji dimbal na fi taqlil rutubati ci néewal tooy tooy yi moo xam tooy tooy yaram yi wala tooy tooy barab yi jant bi moo koy yóbbu mu wàññeeku am na nuy tooy tooy di ëppee nag du baax faxris xiiral ala wujudihi ci amam fi maskanika si sa dëkkuwaay tans da dund dund saalimal badani di aji mucc yaram mu ne na fexe fa dëkk leeru jant bi fu mën a dugg ndax nga mën a wér mum talian da nga fees quwatan ci kattan wana shaatan ak cawartaane dégg nga dégg nga ak cawartaane waaye cawartaane nag ñaar mooy tax nit mën ko am kattan moom boo lekkee bu baax di def sport dinaa nga nga mën nga am kattan waaye cawartaane pour nga am ko faw nga ragal yàlla faw sa àddina yi bañ nax mais boo dëkkee bu baax baax fekk yow sa xol bi dafa sori la danga nga bëri ay problème way yaaka moytul wa daw as sinai ak leer gi nga xam dañ koo créer comme leeru làmp yi ak yooyu mu ne moytu ko rawatina ak daifa bu lot leer goo xam ni fësut waaw ah, làmp boo xam ne leerul bu baax fa inoo nag moom mufsidun aji yàqu la lil hawaayi ñeel ngelaw li mujhidun aji sonal la li quwatil absaar ibsaar ñeel kàttanu gis ibsaar gi masdar la bu doon absaar nag jëmu basar la جيسك لي في في نك قول لقوة الأبصار لير قول لبت دفعي نقد البت مني مويتكو لير قول خمد نكو كريكم لير لامب لير تلفون لير نانغم تفسد يعني مويتكو دفعي نقد البت متخ ني مويتلو نت فاي لامب تال تلفون بس بوبا لير قداعي فلايتون أتمي موتي الجملة آتي جملة ديك بوادي اسم فاعل نتك اسم فاعل في المكان الخارجي برابي بيدي وبين لير الموقع وتاب ويا من الاعراب دي اعراب موت في اسمه فاعل لا لنا لان لا نحو من لنا نكو اعرابي كان نيك نادي ناو ندب لعل اباك امانه صباي زننت يورتنا الهلال ويروي النار سفرسي في المنازل تكري يسرني دنم كونتان لو التلميذ ارف دي قيس استحمام سانغو اطب الاكل في مجر لك لا تزال اسم سجنت بي سبنا سيبنا الرجل déedéet takraha forcé na góor gi akraha forcé na lay firi dégg rakibtu war naa albaxra géej gi man fakkat dañut asamaaw asamaan mootilee ko ismu faayil ijaal defal ku ismu faayil bépp ismu faayil fi maa yeeti ci lidik mafoolon saanil muy mafoolom ñaareel li fiil ñeel fiil min afaali yaqini ci fiil yaqini wastaw fi nga matal jëmee haaji afaal mboolem yi de fiil yi ismu faayil la Euh, indil jumla boo xam ni ismu faay bi ma foolu saani lay nekk te fi'lu yaqin yi nga jàngoon ngay indi na yëpp jeex naafaan aji jariñ musaafiran aji tukki musmiran aji meññ gis nga aj aji lañ koy firé musdahiman aj rëj rëjloo mooy buuxante muxlisan aji sell moolikan aji alage su ko defee nag boo xam ne ismu faayil xam ni muy firi léegi boo di fireeti baat yi bul wax naafaan njariñ firee ko aji jariñ nga xam ne lii ismu fa'il la dégg nga yàlla defal kul ism bépp ism min asma ati ci ism lik mubtada muy mubtada wa akhbir nga xibaare anu ci mom bi ismu fa'il ci ismu fa'il mu laa amin bu dëpp moom yii na nek mubtada seen xabar na nekk ismu al matru taw taw bi al qamar weer wi alsaxaabu niir wi al alqitaaru tene bi almisbaaw lamp bi al kalbu xaj bi almaaw ndox mi at attaamu ñam wi التلميذ ألف بأتاجر كما بي tabibu docteur bi assaane wu aji liggéey ji ashijaratu garab gi assamaawu asamaan fi assawtu kaddu gi yooyu nañu wut xabar boo xam ne ismu faayil lay doon lépp ci xabar sax boo xoolee day ñëw nekk ismu faayil hmm? suux tëggal kulle ism bépp ism min asmaa aate ci ism yi dikk fi jumlatin mufiidatin jumla bu am njëriñ wana atu nga wutal ko naatu bi ismu faayil mu laa bu dëppoo hmm? baat yi dugal leen ci jumla nga wutal leen naatu boo xam ne ismu faayil la kitaabun téere comme nga jël mufiidun waaye da nga koy dugal ci jumla binaawun tabax rajulun góor sadiqun xarib bul jël nag sifa mushabba bul jël melaw waxam dafay sax ci nit ki melaw wuy dem ak dikk ngay jël mooy ismu faayil waladun xale bustaanun tool amalun liggéey muhandisun ingénieur madrasatun école madinatun dëkk alxatibu aji xutba alxisaanu fas alfaakatu fir wi alxujratu saal albaxru géej yi yëpp dañu leen wutal naatu boo xam ne ismu faayil lay lay doon soo tëggal kulla fiilin bépp fiilu mu ne afaali artiet yi ci fiil yi di dikk ismu faayil ismu faayil wastaamilu na jëfandikoo ko fi jumlatin mufiidatin jumla yu am njëriñ fiil yi tëgg ci ismu faayil nga doo ko jumla bu am njëriñ toog na andil aji toog shariba naan na inkasara damm na istasala yomb na xamila liggéey na te jaaxala réer réerlu na te saa na bébbali mooy mu ëbbu gémmiñ gi noonu akala lekk na fahima dégg na tamattaa xewlu na su ko defee yii xam nga tamattaa tafaala lañ ko tëg tafaala moom yatafalu la waaw xam nga mu daara woo kii bi sax mujj ga kasaroon mais ci ismu faal da nga koy kasar andil ismu faal yi parce que tudd al afaal maadiya fi'l maadiya wal afaal mudaari ak fi'l li kulli ismu faal ñeel bépp ismu faal fi ma yaati ci luy dëkk dégg nga lii ismu faal la andil seen maadiya ak seen mudaari muntaliqun aji dem mustafirun aji jéggalu zaahibun aji dem saaniun aji liggéey saabiqun aji jiitu muxlisun aji sellal muidun aji baamu mutaallimun aji méttatlu mumtaidun aji mer mer laaxiqun aji jot taabirun aji topp musruun aji gaaw musmirun aji meññ multahibun aji jër-jëri mooy luy tàkk ak safara ni ak ay ak ay kii lu xonq li kii nekkul xal kese waaye dafay tàkk ni muttaqidun aji tàkk muttaqin na mën naa nekk làmp mën naa nekk lu ne mais multahib moom safara suy tàkk la kaw informel xam sa jumla leen juróomi jumla fii kulli mi naa nekk benn mu nekk ismu faayil ismu faayil boo xam ne feeno feeno feeno ba sulaasiin sulaasiin formel juróomi jumla yoo xam ne nii ismu faayil bi day am ismu faayil boo xam ne ci feeno sulaasiin la jógee kaw informel xam sa jumla leen juróomi jumla fii kulli mi naa nekk benn mu nekk ismu faayil ismu faayil boo xam ne feeno feeno bi xeeru sulaasiin bi sulaasiin formel juróomi jumla yoo xam ne bu nekk am na ismu faayil boo xam ne fi'l bi jugee wut si suraas yi kalim formel jumla te ne ñaari jumla ismaytayni yoo xam ne ñaari jumla ismay al mubtada mubtada ga fii kulli minaa ci benn mu nekk ismu mawsuul la di jamaati inaas ñeen mbooloo mu jigéen wa xabar wa xabar ba ismu la formel ñaari jumla ismiya yoo xam ne mubtada bu nekk mubtada gi ismu mawsuul la buy tekki mbooloo mu jigéen xabar bi nekk ismu faayil xabar mubtada xabar na dañuy dëppoo comme ni ñu ko jàngoon si njëlbeenu si dars yi weesu weesu kaw in formel jumlatayn ismiyatayn ñaari jumla ismiya al xabar xabar fi kulli mina ci benn mu nekk musanna la mawsuufun buñ mën a lee bismi faayil formel ñaari jumlaay ismiya ñaari jumlaay ismiya ngay formé bu nekk xabar bi musanna la bu ñu wutalee naatu boo xam ne ismu faayil la su ko defee loolu mooy darsu bi nga xam ne moo ajoon ci ismu faa'il ma uriidu islaam wasalaamtu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh